yonent bi sallallahu alayhi wa nee na amul benn jaam buy bakkaaru ci ab bàkkaar mu jàpp njàpp lu sell gannaaw ba mu taxaw julli ñaari ràkka gannaaw ba mu yëkkati ay loxoom jéggalu yàlla lu dul ni yàlla dana ko jéggal bàkkaaram boobee mu def abu daawuda ak tarmasiyu ñoo solo xadis bi